benn livre philosophique Youssouf Kale Wuyo ñu déglu ko kàddu yi mu denk suñu correspondant foofee ci Richard Toll Mamadou Diagne. livre bi def nañ ko ci juróom fukk ak ñeenti pàcc ndax benn pàcc la ci li ñu bëgg a wax moo jëm ci wàllu droit li nga xamante bépp citoyen loolu la war doxee ndax bëgg-bëggam ak sañ-sañam moo jiitu ci moom li ñu koy digal bu ñu la gëmloo ne injustice nit ñëpp mënuñu yàmmeengo wala nga xamante ni noonu la na génn ci ñaar léegi am na le principe du droit naturel ñëwaat nañu ci point de chute de la démocratie parce que tamit pour nga dindi benn affaire nga ko mën a remplacer benn affaire mais boo koy remplacer da nga koy remplacer li ko gën am na aussi jàngat tamit lépp li nga xamante moo ñuy sore àdduna nii lay dox àdduna mosul doxee nit ñi ñooy doxee noonu am na li ñuy wax les fondements du principe naturel mais tamit ñu ñëwaat ci li nga xamante ni ñoom loolu nañu sumboon pour gëmloo nit ñi état bu ngeen mënti am moo gën ci yéen ndax bu loolu amul dañ di rayeen parce que nañ ko expliquer ba pare ñu andi ñu le droit existentiel il faut que tamit nit ki gëm ni moom li gën ci moom moom moo koy xalaatal boppam kenn mënul xalaat ci place te citoyen bu mu mën a nekk am na sañ-sañ boobu dañoo nax nag bi sañ ba pare nit ki doog a am liberté nag buy lii dajewu mu comprendre que ni mënul libre ginnaaw nag bu mu libre ba pare peut sentir liberté ci lee nag révolution changer li fi nekk méngale ak moom li mu bëgg ak li mu gëm pour euh, lépp jaar